yéen ñi safoo di topp 5 bi ale ba seeni nopp ma dikk ak yéen ci li ci yéenekaay yi coppite yi ñu andi ci code yi mbasum covid bi ba si jongante gox yeeg goxaat yi ñetti poñang yi yoo xam ni pouvoir beeg opposition bi dañu caa ware woo carrément bu ñuy jaaree gauche ñi si des daal di jaar droite turbine moo ko xëy fësal ci xëtam bu njëkk yéenekaay yi groupe des médias bi ne virus delta bi déggoo amu ca Antoine Diome ci journal bi ne kenn mënul tuumaal mbirum njuuñ njaac waa nguur gi Abdou Bara Dolly Mbacké teg ca ni Abdoulaye Makhtar Diop ñam na ci ndékki Senghor daal di añ ak Diouf reer ak Ablaye Wade ba noppi nag bëgg waat ndekki ci ndekki Macky Sall eh, ba tax waa nguur gi eh, ñoo ngay jubilé te ñoom waa ku jéggi nag ñoo ngay waajal xeex bi xamle nañu ni jongante du am te Khalifa Sall ak Karim Wade bokkuñu ci lii quotidien dolli di ñu si xamal ni lu ñeel projet de loi bi nga xam ni moom moo jëm ci code électoral bi eh, Karim Karim Wade moo tax rek déggoo amu ca ba tax l'info ne jaayante doole moo amoon ca pencum ndawi réew mi ci votu code électoral bu bees bi source a di ko ca feelu ndax fësal na ni waa ku jéggi bi daal di fayu Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly ne article 29 ak article 30 bu code électoral bu bees bi xel la ngir rek daal di supprimer opposant yu mag yi te loolee nag dictature lay niru Abdoulaye Makhtar Diop daal di ciy teg nii ñu bëggee woteloo ay criminel ak ay prisonnier faaw rek ñu soppi code pénal bi ak code de procédure pénale bi Abdou Mbow dolli ci ni waa kujje gi seen bépp càkkutéef rek euh, defal nañu leen ko maanaam rek waa kujje gi ñoom ñoo jubul euh, jëwriñ bi nga xam ne nag moom moo gàll wàllu ko biir réew mi moom it li mu xamle rek mooy di wax naan kan moo war a nekk candidat ak ku ko warta nekk wala na kan mooy bindu ci liste électorale yi maanaam daa dégager responsabilité am ci mbir mi Woré Sarr moom Antoine jom rek la daal di yàq lu mel ni xeme te xamal na ko ni yow Antoine bi nga nekkee rek procureur ci tribunal bu Géejawaay laa la xam te liggéey bu baax nga fa nekkee woon nga joge jógewee ci magistrature bi ba ànd ak malfaiteur yi di jëfkatu ñaawteef yi naxaatekat yi ak comploteur yi xàmmeetuma la waaye ak lu mu ci mënti doon rek bu ñu sukkandikoo ci le Sall amaat na ndam bu rëy rëy ndax projet de bi nga xam ni moo ñeel modification code électoral bi wote nañu ko niki démb ca pencum ndawi réew ma te booba jamono Walf Quotidien moo ngi ñuy xibaar ni moom Macky Sall daloon na avion présidentiel bi gannaaw coow lu bari li nga xam ni moom moo ci amoon yéenekaay bi ne couple présidentiel bi démb rek la dem ca Nouakchott quotidien national bi moom daa topp président national ba ca Mauritanie Le Soleil di ñu si xibaar ni tukki xaritoo la njiitu réew mi daal di amal foofee ca Mauritanie yéenekaay bi fa l'observateur moom ci mbasum Covid 19 beeg ñetteelu vague bi la daal di xëyee mu xamle ci ni rek état bi euh, noppi rek moom moo ko war ndax kàddoom kenn du ko déglu wala nag di ko fullaal te loolee doxalinam moom moo ko waral waaye Seydou Gueye euh, di ki yor communication bu njiitu réew mi nee na ñetteelu ku vague bi état bi waral lu ci dara ak lu mu ci mënti doon rek wàllante bi moom ñeel jàngoro ji saa bu ñu xëyee day gën di yokku 24 heures yéene kaay ne ñetti téeméer ak fanweer ak ñeenti kaay bu Njaay Jaxate si yéenekaay bi ne rapport yi nga xam ni def nañu ko yépp joxe na ko moom liggéeyam jeex na jamono ji nag bu procureur moom moo ci des yooyu le rapport nag fësal na tolluwaayu ger ci réew mi l'info di ñu si xamal ni policiers yi ak gendarme yi ñoom ñoo nekk ci bopp ñi nga xam ni ñoom la ñu a ger ci réew mi mu topp ci député yi ak conseillers municipaux yeeg yu départementaux yi coowal milliards sulleekuwaat na les échos ne ñi nga xam ni ñooy kër yi te mooy rek benn xale bu góor moo reen di papaam ay atam toll na si juróom-ñett fukk ak ñaar ba noppi nag daal di koy sànni ci àll bi ndax cinquante mille francs ñu dem ca làmb ja ak face to face bi nga xam ni moo amoon ni ki démb ci diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier sunu làmb ne tàngoon na jër Bombardier nee na amul rek nooyal ren nag ngir xeex Balla Gaye 2 tegal ko ca ni revanche far soos rek da koy jël fi la ñuy nar keppee li si yi ma delloo leen ëllëg incha allah jërë ngeen jëf